Ahmed 600 dollars la nekk. <laughs> Michael Jackson ñëwaat ah, sant yàlla fii. tey waaw yëpp yaa waaw lan ngeen ak africain yëpp mën a bëgg ndax àdduna lii la ñu ñu mën a bëggalante yéen da ngeen di toog un an de liggéey gars yi di stress fii you know bu fekkee nag da ngeen a def seen. mbooloo bëgg ñun ñu bëggal leen nii la lan mën a def ñëw jiitu gaa yi wax gaa yi xamal na leen leen affaire bi du ay naxembaay bi passé ni mu demee la woon suñu borom puus ko léegi nag ñëw nañ il faut ñu jéem a woon gaa yi ne leen tey dañ leen di bégal sénégalais yëpp maliens yëpp ivoiriens yëpp ah guinéens yëpp ñu ngi nii pour dajaloo pour ñu mën leen a bégal waale sawar ci lool daan sawar ci lool tey ngeen gis loolu mës ta gis incha allah tey di ngeen gis loolu mës ta gis bu nu paree fii ña nga jëm Atlanta waa Atlanta di xaar bu nu paree Atlanta ña nga jëm Columbus Ohio ñu ngi ñuy xaar ca kaw ca kanam yàlla na yàlla def jàmm rek sañse yi gis naa ko gaa yi sañse nan xale yi góor yi jantal yi sañse nan ah kon nag du yomb lii ma def nii puisamment la rek maa ngi ñëw ci biir su ma ñëwee ñu xam lépp dëgg la waaw laay daa xay da daa ba ci kanam donc c'est un acteur culturel nous sommes des hommes de culture on a besoin de l'accompagner beneen bi ci topp nag mooy sama jataay ci soirée bi mooy damaa ñëw pour fecc xam nga bu la yàlla dimbalee àdduna bi nga ne au cœur du monde muy réew mu ñuy wax États-Unis di New York nga xam ni boo mënee dara ak noo mënti mel da am dara donc su ñu fi nekkee di sant yàlla di fi for loo xam ne sinti nii ñu ngi ci teral suñuy njaboot di ci teral suñu waajur nekk fi ñu ñu bu ñu sëqatee sénégalais yu baax yëpp ni yaaram ka Amérique moo ko def kon dañuy sant yàlla nit nag buy sant yàlla mënu koo feeñal wala mu wane ko fenn ci dul cër yi nga xam ni moom la am ci ci information bi mu am ci culture am donc ñun pour ñu sant ñun dañuy fecc rek bu ñu fecc rek mooy sant nañ yàlla Seydina. waaw Wally sama rak la sama xarit la et dama ne képp kuy jeune sénégalais ngay jeune talent ak looy mën di def di ci yëngu man j'ai le devoir un devoir de te soutenir s'impose à moi du ma ko bañ parce que je me autoproclame ambassadeur de la jeunesse sénégalaise. jeune jeune sénégalais bi dem Arabie Saoudite def concours Coran sirat euh, tari alxuraan gagné ko sax dama koy soutenir. jeune sénégalais bi nga xam ne day dem di football yi dama koy soutenir jeune sénégalais bi nekk ci musique dama koy soutenir bi nekk ci natation ainsi de suite donc loolu mooy sama devoir. kon war ma maa la wax loolu. waaw euh, I'm part of the Sama Jam too too defoon ko Dakar. instant allah. di waaj dem the 26th on the uh, in Atlanta. Mm-hmm. the 26th in Columbus Ohio. Mm-hmm. looloo looloo war teewaay. Mm-hmm. Uh-huh. ban message nga am pour la communauté sénégalaise bi nga xam ne ñëw nañ tey wuy si Wally Ballago Seck. di leen di leen di leen sant di leen gërëm parce que c'était pas évident surtout nga am holiday bu mel ni uh, Thanksgiving dañu leen di sant di leen gërëm ni teewal nañu African Live Game. teewal nañu seen doom Maria si Maysa Bigué Maysa Bigué Mar. Mhm. ok ban message nga am pour Wally Seck en même temps réussir na événement am gannaaw ñuy pousse di ñëwaat ba date bi mujjee am macha allah. waaw di ko wax rek di ko wax ni fu mu teg tànkam foofu la. Mhm. mbir mi daal liggéey la. Mhm. rien n'est secret rien n'est secret tout transforme. fi moom rek yàlla rek a fi ne. dóor rek. Euh, man la ma faal so donc dañoo ñëwoon ci événement Wally Seck bi le 23 novembre donc lu dul way xam nga lu dul rap donc lu ñu fil la di ko def yëg ko nekkuñu si à 100 pour cent mais nag bon parfois bu événement bu mel ni foog ñëw te suñu participation comme ñëpp waaw c'était c'est bien bokk bokk euh, ñu xam nga pressé nañ ba wàcc nii mooy loolu daal.